asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata fukki fan ak juróom-ñaar ci jumaada saani muy weeru maama koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki ci weeru janvier ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett fukki fan ak juróom-ñaar bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci talaata ji rafet na talaata ju nekk nag dees cee tira ci rek wàccandiku ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñaw ñaanu bis bi yow yàlla yàlla na nga nu defal sa barke ak sa yërmande ak sa ngëneel ak sa wërsëg allahuma basut alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa risqik allahuma basut alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa risqik xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee digal nañu ma ma xibaar leen am malaaka ci malaaka yi yanu aras malaaka moomee diggante catu ba ci doqam mat na doxub juróom-ñaar téeméeri at xadis bi abu daawud nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam udina lii an uxaddisa an malakin min malaikati llah min xamalati alars innama bayna samati udunihi ila aatiqihi masiratu sabaa miati aam rawahu abu daawud waxtu julli suba waxtu na tàbbi six heures seize juróom benn waxtu yi tegal fukki simili ak juróom benn tisba 13 h benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili takkusaan 16h40 ñeenti waxtu yu tegal ñeent juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili juróom ñaar gee 20h08 juróom ñetti waxtu yu tegal juróom ñetti simili loolu mooy waxtu julli ci Touba ak bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yi doy benn simili soo ko féetee sowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yi yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala a téeméeri kilomètres yi doy yokkal benn simili bi dina fenk sept heures vingt neuf juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñeent di so dix huit heures cinquante trois juróom-benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñett yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin